voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak koo xam ni kii euh, duñ ko sax présenté ci réew mi waxatuma laa di ko présenté auditeurs yi muy l'honorable député Soxna ay Aïda mbooj ñu xam ko bu baax a baax c'est pas la première fois également mu ñëw ci émission bu mag bi nga xamee ne moo di jano bi nga xam ne dibéer ji dafay jàll ci synchronisation bi yëpp au niveau national fépp foo xam ne fi am nañ manifestation ñu koy sant bu baax nag di ko gërëm bu baax a baax ci dalal gi mu ñu dalal tey jii nangu yi tamit invitation bi malgré que euh, dëgg-dëgg xat na lool ci moom ci jamono yi mu toll ndax yu baree bari yu koy xaar soxna Aida ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. Hmm. Euh, sëñ Maodo maa ngi lay nuyu Faye hmm. di nuyu Assane Thioune di nuyu euh, waa Sud FM yëpp mais nag di nuyu Baye Omar. Mhm. di naqarluwaat suñu kilifa gu baax ga Babacar Touré. très bien boobaak léegi gisantewu ma feeg yow. pour <laughs> jaale leen mais ah. jaale woon naa ko Baye Omar. merci beaucoup di ko jaale tam njabootam. Hmm. di xam rek fa mu leen féete woon yàlla na leen fa yàlla féete. amiin tabaaraka euh, maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. Hmm. di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla. Hmm. yàlla nañu yàlla taxawu. ba ñu wax loo xam ne. Euh, suñu nawle yi ñuy déglu dinañ ko mën a dégg bu baax ñu dégloo ñu ak xel te bañ ñoo dégloo ak xol. jërëjëf soxna Aida daanaka actualité bi mooy ñëpp xam nañ ko waaye dangaa dugg ci actualité ba noppi amaat ci beneen cër mooy cër bi nga xam ne li ñuy tàmbalee moom la Sénégal yëpp di xaar tànn gi nga xamee ne Ousmane Sonko daf la ko tànnaat ci biir député yi ne la nekk fa avocat tey jamono bi nga xamee ne. xat na lool ñee ngi jëm càmmooñ ñi jëm ndeyjoor yow nga ñëw ruuñu loolu ban jàngat nga ci am. waaw euh, sëñ Maodo loolu dama ciy jëkk a ñaan nga ñaanal ma ci yàlla ndax doomu soxna nga. incha allah nga ñaanal ma ci yàlla yàlla defal ma ci sutura. Mm-hmm. ndax Ousmane Sonko su ma doon avocat boo xam ne mooy loolay sama métier dama war a constitué wu ndax sama dëkkandoo la. Mm-hmm. te yow mii jàng alxuraan xam nga li yàlla wax ci dëkkandoo. Mm-hmm. dëkkandoo nag bi ci gënati mooy boo mën a seede yàlla def tam ma def ak moom ñeenti at ci assemblée nationale mhm. mu def ma rakkuyaayam ma di ko jéem a nekk mu won ma jikko yu rafet yu tax mhm. lu ñu ko tuumaal te gëmuma ko te amaguma ci firnde loola mën naa ko ko weddil mhm. ñu bokk nekk ay député tudd député non inscrit muy leneen lu ñu bokkati ñu wëlbatiku seddoo géewu opposition bi. Mm-hmm. mu ciy jàmbaar joo xam ni kenn mënu ko ci. Mm-hmm. ñu wëlbatikooti ñun ñaar ñëpp ku ci nekk da ngaa ñëwal sa bopp assemblée te àndoog benn coalition. donc góor góorgóorlu mooy maye loolu. Mm-hmm. bon suñu toogee tey loo xam ne dafa ñëw rek dal ci kawam. deful dara pour mériter ko deful dara pour mu yegsi mu ñëw dal ci kawam dama cay ànd ak moom. bu ma tànnul woon sax waxuma laay nag bi ma yàlla suturaalee ba mu am ci man kóoluteef ba tànn ba tànn ma ci dama ko koy taxawu ba loola wax dëgg yàlla liñ ci bëgg yépp ñu am ko li ngeen ci bëgg yëpp ngeen am ko ci mbiru Ousmane Sonko xëy na dana jafe commission ad bi ñuy wax nii seen ndaje mi nu mu demee woon lu coow li bari na bi ngeen génnee ngeen jëm góos ñi jëm fële Moustapha Niass ñëw fii Cheikh Bamba Dièye génn fee ñu nekk fee utiliser nga la moo x x moom c'est inco la mais lu xew lu xew ci ndaje yi lu xew. bala ñoo dem ci x da ngaa tudd commission ad hoc. xam nga wax naa la léegi ne la maag Ousmane yëpp ay député non inscrits lañu. Mm-hmm. ñu séq ko suñu yeneen nawle ba muy fukk ak ñett. Mhm. amoon na ñeneen. waaye ñu ci bëri dañoo caa génn dem ci pouvoir bi donc dem ci groupe Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu nangul leen ko. yàlla def mu am euh, loo xam ne mbir yàlla la parce que man maa moome woon groupe bi. Mhm. ci janvier bi yëpp. lii ñëw ci février bi tasanteeg ku ñuy wax faatu Ndiaye nekk ci réew mi moome groupe bi. bi mu moomee groupe bi ñeenti at laa la wax ne la ci lañu ñu nekk gum assemblée ak ñoom man moom bii mooy sama ñetteelu législature. Mhm. bu lii paree ak jàmm ak salaam te jógewu ma fi dinaa nekk dina nekk fukki at ak juróom ma nekk ko assemblée. Mhm. waaye ñoom ñi nga xam ne ñu ngi door ñëw ci assemblée nekk nañ ñeenti at ñeenti at yi ñu nekk yëpp Fatou Ndiaye boobu mësul teg tànkam conférence des président déet waay su moomee Cheikh Bamba Dièye may dégg. moom mooy dem ci conférence des président moom mooy jël information yi moom mooy ñëw bindu ko ci suñu groupe bi nga xam ne moom la ñu bokk ni ñu parce que dafa am lu ñuy wax article vingt moom moo ne non inscrit am nañu kenn ku leen di nekkal ci conférence des président kooku day moomante weer wu dekk am na ku koy moome pour nga xam ne bu conférence des présidents amee moom moo fay toog pour wax lan la ñu wax pour que ñu ñëw jottali ko député non inscrit ndax xam nga ni groupe par président groupe parlementaire mu ngi ma nekk membre bureau nekk euh, membre conférence des président bu opposition bi président groupe euh, majoritaire mu nga fa waaye non inscrit noonu rek la ñu mën a bokkee ci mbir mi pour mën a jottali seeni ñooñ mhm. donc ci foofu la yem conférence des président waaye bu dara xewee dañu naan non inscrit de nee nañu nañu tànn kenn ku ca dem mm-hmm. waxtu wu nekk noonu la ñuy doxale bii yoon ñoom ñu dem wool ko seen bopp donte ne nekkul membre euh, nekkul membre commission des man mii maa nekk membre commission des ñoom ñu woo ko mu ñëw toog bi non inscrit waree joxe benn ci commission ad bi ñu daal di koy woo ni ko koy joxe mu ne leen man mii may may toog ah ni ni nit ñi daan def sax naan négal ba ma dellu ca non inscrit yi laaj leen ku ñu bëgg moom fekk ko ci xam nga ñoon yow booy politique di nga xam loolu nu mu demee. Mhm. nga xam ni kon benn ñëwam gii mu ñëw toog te bokkul ci commission bi te moom duy faral di ñëw sax assemblée am na lu ko waral. Mhm. ñaareel ba kon euh, am na luñ ko dee ndax bu ma la joxee exemple session budgétaire bi yëpp jatara suñu doom ñun ñëpp bi mu bi mu waree ñëw assemblée rek ci la dooree ñëw ca session budgétaire bi. Hmm. ca la ca laa ko dégg it mu wax. waaye loolu yëpp nangul nañ ko ko comme assemblée nangu nañ ko ñun suñu yoon nekku ci waaye lii nag moom dañ koo moom ma jóg ni ko euh, euh, comme euh, groupe bu non inscrit yi tànn nañu Cheikh Bamba Dièye waaye mu ngi woon ci ndigal gi looloo tax bi ñu leen waxee ni leen Cheikh Bamba Dièye la ñu tànn nanguwuñ koo déglu ñu wër ni def nañ commission ad hoc bi tànn nañ Cheikh Bamba Dièye parce que dinañ ci ñëw commission des lois bi dafa am lu ñu laajoon. Mhm. loolu ñu laajoon mooy mu mooy laaj bi nga mujje mooy problème mu x dinaa ci ñëw. Mhm. looloo tax ñun bëgguñu ci xuus ni ko ni kon groupe non inscrit ñu jàll parce que waa PDS ñoom group pedes bi ñoom dañ ni mënaguñoo joxe ñaar yi ñuy joxe ndax mbiru x boobu tax na ba est-ce que ñun dinañ bokk ci commission ad bi ñu daal di bi ñu ñëwee ñu xam ni ñii bëgg nañoo jël bëgg nañ ñoo rax daal maanaam ni ko xale yi waxee. Mhm. dañ ñoo nar a rax. ñun fukk ak ñaari yépp ñu daal di def liste signé ko bind président Moustapha Niass lettre Cheikh dem yóbbu ko wax dëgg yàlla ñu toog ba ci ngoon bi ne suba la ñuy def commission ad bi ñu daal di ñëw jox ko euh, président daal di woo Cheikh Bamba ne ko effectivement nangul naa leen li ngeen bëggoon bind nañ Cheikh Bamba Dièye ci commission ad bi. Hmm. jàmm ni ñooy. ok maintenant. ca biir commission des lois ba. mbiri commission kenn du ko wax. Mhm. waaye li indi wax ji moo di dafa am ku bokk ci bureau bi dem ci benn journal ni ko ay dëmbëj de daf doon bëgg a ngat mbiri Fatou Ndiaye waaye dañ koo nangu kàddoom. E. kama ko laaj ma ne ko yow yi gëm nga loolu parce que xale bu jigéen nga tey yéen dama leen a war a former gëm nga loolu mu ne man kay meer ma ay Mbodj ñu nangu kàddoom man ko mu ngoog xam nga man mu naa man ne ko kenn du sama chef foofu. Mhm. ñas dama ko jox kilifteef ndax mooy président mhm. yàlla def. man keroog ca commission ba ba ñu nee salaamaaleykum présidente commission bi ubbi rek ca laa kon ne dafa am lu ma lay laaj même laajin wi dañ koy jara seet Maodo Senghor moo defar suñu réglement intérieur mais tey laa ko gën a mën a jukkal. ndax suñu règlement intérieur dafa bàyyiwul dara su ma ko ne woon question préalable rek mu ne ma question préalable pour plénière la ndax article 74 a ko wax dama ko ne damay def question au préalable. bala ñoo commencé liggéey bi mu jox ma kàddu bi ma joxee kàddu ma ne ko damaa dégg mu ne waaw avocat baa ngi koy jéem a weddi sax waaye yàlla dafa dogal ñag say moroomu journaliste ak ñëpp déggoon nañ ko. Mhm. ma ne ko damaa dégg ñu ne réquisitoire bi nga xam ne moo saisir juge d'instruction pour juge d'instruction mën a saisir euh, euh, parce que lettre juge d'instruction la assemblée jot. Mhm. mu ne waaw ma ne ko damaa dégg ñu ne. te wax nga ko léegi nee nga lettre juge d'instruction est-ce que juge d'instruction wax na la ni réquisitoire bi ko bi ko bi ko saisir. Hmm. parce que juge d'instruction pour mu jot ci dossier bi réquisitoire mooy mën a tax man ko est-ce que wax na la ne tuddul tudd fa tur x la wax ak moom ban acte la posé bu war a tax ñu transformer x boobu en Ousmane Sonko. wax dëgg yàlla comme comme ci seen déggin mu ne ma loolu loolu fii du waxam fii du waxam. daal di mi ma ñun ko dañoo bind président bu ñu bindee président président woo bureau bi bureau bi nangul ko ko ñu woo conférence des président ñoo convoqué commission bii ñu toog tey ñooy convoqué plénière bi ratifié commission ad hoc bi dañuy composé commission ad hoc man ko loolu mooy premier jalon wu lever immunité parlementaire da ngay jëkk def commission ad hoc bala ngaa yegg ci loolu man mi nga xam ne maay député lambda bi nga xam ne sama premier contact ak dossier bii mën naa man ko mooy commission des lois fi koy laaje ndax loolooy sama droit ba pare dama lay gën dëggalal sama souveraineté man wax dëgg yàlla ñépp daal di ko koy wax ñoom maam jaara faam Serigne Cheikh sax daf cee yegg ba ne ko bu ngeen ñu respecté da ngeen ñoo war a jox dossier bi ndax ne ay député lañu te dafa député dafa war a wax digganteem ak yàlla aqulaay taalaam mhm. ñoom Malick ñoom ñépp ku ci nekk wax ñu ñëw tontu wuñ ci loolu donte ni nag maa ngi doon dundee yaakaar de donte ne xam naa ne assemblée di doxe defoon naa bu ñëwee rapport bi ñuy indi plénière dina leeral loolu te ak a neexoon tey ñu mën a delloo dossier bi justice ni leen léegi kat ñun suñu pouvoir législatif bi ñu yor nee na yéen pouvoir judiciaire au nom de la séparation de pouvoir ndaxte ay nguur yu bokkul lañ ku nekk na def li nga war a def waaye yéen jox leen ñu dossier bi lëmm parce que yow juge d'instruction mënoo tëb tëb dugg ci dossier bi nga jël la nga xam ne mooy PV bañ la joxe gendarmerie parce que boo tudd Ousmane Sonko tëb réquisitoire procureur bëgg a ñëw directement. Mhm. ci sa euh, wareef. daal di koy jox avocat général mu jox ko garde des sceaux nga ñëw di saisir. léegi réquisitoire bi bi ngeen ko tegee ci taabal yi lu ci gars yi wax maga ak procureur wala. ñun ñun ñun gisuñu réquisitoire bi de. gis leen ko ñoom ñoo wax ba wax ba ba ba wax ba ba ba ba feeñal seen bopp. ah bon. ñoo wax ba feeñal seen bopp te ba ñu waxee ba feeñal seen bopp ñun ñu wax ko mënoon nañoo indi réquisitoire bi buñ ko indi woon wax ji jeex. ok waaye. est-ce que yamuñu ci loolu. kon juge d'instruction bi si la base d'un PV amul droit benn PV rek nga jékki-jékki rek. déedéet parce que PV bi dafa am ko ko ko jox te ko ko ki ko ko jox muy procureur daf ko booleeg benn rek réquisitoire bu ñuy tudd réquisitoire introductif. oui moom ni ko nag enquêtal ma man damaa bëgg a maandu ndax éléments yi ñu ko jox mayu ko mu jiiñ kenn. leeragul woon daal leeragul woon leerul. mu ni ko damaa bëgg nga leeralal ma waaw Maodo bu doon yow nooy def. Ah. doo woo sàmba Samba wala Demba ñun bañuñu woon sax mu woo maw dafay ku ne mu laaj la. ne ko yow Sud FM kër góor gi la nekk yaa dëkk ak Ousmane Sonko loo ci xam Maodo Sow Maodo bu fekkee dafa dajeeg noonu Ousmane Sonko boo yeboo sa noonu Ousmane Sonko ni ko lu ñu ko sant luñ ko di luñ ko wax moom la waaye dafa deful dara dafa enquêtul kenn dafa laajul kenn. yàlla dafa dogal sax ci nit ci nit ñi ndax comme man loolu wóor ma mais dama koo dégg te dégg naa ko itam suñu ay collègues ñu ni yàlla dafa dogal guddi googu waajuram dafa wàññeeku. waaye am nañu wax loolu. mu demoon ca dëj ba waaye dañ koo woo moom alors que lu nit gàtt gàtt xel xam ne juróom-ñaari juge fa mais moom dañ koo woo ni ko na ñëw huit heures. mu defar dossier bi yónnee ko avocat général avocat général jox ko garde des sceaux garde des sceaux bind président Moustapha Niass avocat yi daal di ni daal di jàpp ni comme ñoom se ki ñuy defendre ci benn pouvoir la bokk muy pouvoir législatif mhm. négal ñu dimbali président Moustapha Niass ci xalaat ni ko kat leetre bi la juge d'instruction yónnee war la ko woon a yónnee parce que te boolewu ci saisinu procureur parce que saisinu procureur bi dafa waxul kan la kon juge d'instruction bi war la tëb tëb jox la benn information boo xam ne euh, moom bañ ko koy jox dañ ne x la yan jéego la ci jot a dox pour wane ni x la loolu la ñu bëggoon nga def ko lool la avocat Sonko yi def. ma mhm. jàpp ne parce que bind nañ ci journal bi ni Moustapha Niass déchire la lettre. waaw il paraît que de Sonko daal de ni leen amu leen pour bind ma. dëgg la amuñu pour bind ko waaye bàyyi ba bàyyi la boo xam ne dafa war a def kaaraange ci doomam. bàyyi boobu nag dañ ko doon xamal rek ni ko yow lii mooy sa droit di ko fàttali lan mooy séparation de pouvoir de de pouvoir di ko rappeler ni ko ki nga xam ne njort nañu njort dong lañ am ci moom mais doonagu ko parce que Maodo Maodo immunité parlementaire lu am solo la. waaw am solo te daal foye nañ ko foye nañ ko lool lool lool. parce que gis nga moom su fekkoon ne juge d'instruction bi. Mm-hmm. Euh, def na liggéeyam. dafay dellu si waat bi mu dem parquet parce que dafay def li ñuy wax instruction préparatoire. Mm-hmm. te instruction préparatoire mënoo koo def te defoo enquête. oui te moom loolu lañ ko santoon. pour pour mën ñoo woon kuy x. oui pour mu enquêter. pour mu enquête maanaam te te pourtant soxla woon nañ enquête boobu parce que gendarmerie dañoo enquête ba ci digg bi ñu nangu dossier bi ci Abdou Mbengue. ah dañ ko dañ ko àggul. non seulement nangu nañ ko. waaye ñu ngi ñu ngi ruumandaat sax naan est-ce que moom affecté wuñ ko. parce que ah. ñu ngi jàpp ni dañ ko affecté cellule de terror euh, cellule terrorisme. te moo yoroon dossier bi moo yoroon dossier bi moo ko enquête. enquête bi àggul turam a ngi ci sa ay confrères génne nañ ko barki Demba Ndiaye. turam moo ci nekk. enquête bi nu muy àggee Sidi Ahmed Mbaye nee na ab ab ab ab avocat ak ab médecin moo ko moo moo ko dimbale mu génn. bul fàtte ni couvre feu lañ nekk. waay waay waaye ci guddi gi ci guddi il faut que nit ki am daraja ju koy may mu mu dugg mu mu génn ci couvre fa bi. di jël nit ak di yóbbu. parce que jëlul nit rek yóbbu mais dafa mel ne dafa circuler ci guddi gi yëpp te ñu nekk ci couvre fa mais médecin bi kan la avocat bi kan la am kenn xamu ko. waaw juge d'instruction waruñu woon a dimbale pour loolu ndax xëy na su leen ñooñu su leen déglu woon euh, déglu plaignante bi sur xëy na yàlla mën nañoo dimbale ñu xam koy x donc loolu kenn du ko nangu Maodo li ma la bëgg a xamal. moo di loolu yépp dafa wane ni complot la boo xam ne niñ ko defee sax baaxul parce que nit ki buy sàcc sax na nekk sàcc bu mokkal. ba nga xam ne bu rawalit wax dëgg yàlla kenn du mën kenn du ko mën a leer na mais nag lii moom. pour yow pour yow c'est c'est flagrant complot la leer na nañ ñi. déggloo ñu naan complot cousu de fil blanc mooy loolu c'est-à-dire que lii moom. mooy leer na nañ rek. dafa leer nañ parce que lii ma la wax. Mm-hmm. lii fu dul pays de droit sax kenn mënu ko fee xalaat. waa mais léegi d'accord en tant que yi daje ngeen def ngeen seen commission euh, ad bi gis nga li nga xam ne moo fa am. waaw doon nga ma laaj commission ad bi. léegi nag loolu première partie bi rek laa la wax. ñu ñëw nag pour ratifier commission ad hoc bi. Mhm. waaw Serigne Cheikh mujj na joxe ay membres mooy mm-hmm. moom Serigne Cheikh président groupe parlementaire. Mm-hmm. liberté démocratie Cheikh Mbacke Baara Doli. Baara Doli Moustapha Girassi ñoom ñaar ñëpp ci opposition bi lañ bokk ñun suñu représentant Cheikh Bamba ji moom tam ci opposition bi la bokk donc mat na. Mm-hmm. waaye ñun ñu ngi am ba tey lu ñu lokk jëlee ko ca commission ba. ngeen téye ko. ñu téye ko ñëw ci biir assemblée ni président ñun de. ñu ngi door a gisanteeg yow ci mbiru dossier bi dafa am li ñuy wax ci article 74 règlement intérieur question préalable. Hmm. ñu bëggoon laa laaj ndax dañ ni juge d'instruction bi moo la saisir moo la yónnee lettre boo xam ne ki la ko jàllaleel mooy procureur général ak garde des sceaux muy ministre de la justice ñu bëggoon laa laaj ci mbiru lettre boobu est-ce que xam nga ni juge d'instruction lettre bi nga xam ne moo ko laaj pour loolu. donte ni moom waru koo saisir sax dinañ ci ñëw dañ la ko lettre boobu mu lay yónnee dafa am lu ko lal li ko lal mooy réquisitoire introductif fu procureur te yëg nañ for nañ ci wewu nag ni réquisitoire boobu tuddul tur kon juge d'instruction fan la sukkandiku bay tudd tur yow président est-ce que war nga nangu ñu jékki-jékki rek fu ex jóge ñu teg ko ci sa kaw njaboot dañoo bëggoon mu exercer dëgg-dëgg pouvoir bi nga xam ne moom la ko yàlla jox muy pouvoir législatif bi nga xam ne moom lañ bokk ak moom. lan la Moustapha wax bi ngeen ko waxee mu bàyyi Toussaint Manga ba mu wax laal nag bu baax nag xale boobu macha allah laal bu baax point yi nga xam ne war na ko laal mooy lii ma la wax. mustafa mhm. daal dina léegi ñeneen tam am luñ ci wax loo xam ne day mottali loolu Toussaint di wax mu ne dootu leen jox kàddu. ah ah, ah, ah mu ne dootu leen jox kàddu parce que. dootu leen jox kàddu parce que moom mënul euh, di jox kàddu Toussaint di jox kàddu keneen ah bi mu waxee loolu ñu ñu bàyyi ba débat bi commencé bi débat bi commencé ñu daal di wëlbatiku daal di euh, dugal beneen motion muy motion préjudicielle loolu tam règlement intérieur bee ñu ko may de. Mm-hmm. muy mm -hmm. article 74. article 74 boobu def ni. bu ñu demee ba ci biir euh, ba ci biir débat bi. Mhm. te nga xam ni euh, waxtaan wi war nañ koy taxawal pour leerlu dañuy utiliser article soixante-quatorze soixante-quinze boobu mu ne du joxe kàddu gi. mu Moustapha Niass lankat. ne du joxe kàddu gi booba nag. Ah. la député yi génn. ah kon loolu leen merloo ba ngeen dem. seen moo leen merloo ñu génn parce que député doo nangu kàddoom député parlementaire la tudd day parler. député wax moo ko indi kon su ma la déggee kon président assemblée nationale Moustapha Niass moo leen xañ kàddu gi. moo ñu xañ kàddu gi bi mu ñu xañee kàddu gi duñ fa nekk di xeex ak moom parce que sunu kilifa la ñu génn bi ñu génnee ne nag. comme te joxewul yi tax. comme joxuñu ñu kàddu gi man dama jàpp ne dafa amul lu muy tontu parce que euh, ki njëkk a wax wax na ko lu leer te wax bu yenoo maanaa rek da nga koy xam laaj nañ ko kuy x mënula wax kiy x nee nañ ko ki bind. bëgg a transformer x diw diw moomu duñ ko nangu te x amul ci assemblée nii la mbir mi demee ñu daal di teewul teewul ñoom ñoo ñu wax de ni ñëw leen rek ci commission bi bu ngeen ñëwee dinañ leen dinañ leen jox ay document parce que ca commission ba ngeen war a laaja loolu loolu ngeen doon laaj astafurlah dañ ne li ngeen di laaj ca commission ba lañ leen koy waxee. pour mu leer. pour mu leer ñu ne acca kon nag nañ dem. man du ma dem parce que man bu Sonko demul duma ma dem te ba ba fi may waxee yow Sonko booba jotagul woon convocation. Mhm. mais sëñ Cheikh dem na Moustapha dem na Cheikh Bamba dem na bi ñu demee ñu ni leen duñ leen jox document te li ñu xam te mu daan am moo di fukk benn yi ku ci nekk dañuy defar benn jeu de document teg ko ci sa kanam te dinañ la may sax nga liir ko xam ko pour boo ñëwee nga euh, délibéré. ak sa intime conviction. bu boobaa yow bala ngay woo sax ki ñuy laaj bala ñu koy woo di nga wëlbatiku ba waxtaan ak sa xel ba xam ndax eh, document bii ñu la jox euh, leer na walla leerul waaye fekk ñu fa dara. tous ñu fa dara loo xam ni mën nañoo mën nañoo won euh, ni ni ni nañu nañu. mën nañoo won ni effectivement euh, lii moo tax ñu war a jiiñ kii war a waruñoo jiiñ kii. kon yéen loolu amu leen ci benn firnde. amuñ ci benn firnde ma ma ma wax la. Mm-hmm. loola euh, ci ci àjjuma ji la. Mm-hmm. ci la commission bi daje. bi commission bi dajee daal di ni ko daal di ni leen ñu ngi xaar document yi ñu bañ xam nga lu ñu mujjee ñoom. ni leen euh, est-ce que mën ngeen a ñëw bureau Pape Birame toure mi président bi ngeen euh, wax est-ce que euh, mën ngeen koo liir foofa bu ngeen ko liiree jël ko mais 14 h bu leen fa fekkul du ngeen ko mën a am ñooñu demuñu jumaa lu dul jullee assemblée añiwuñu bougé wuñu comme que bi ñuy pare une heure jot na ñu ne dem sax wóorul nañ toog. bi 14 heures 30 ñu piisal leen document yi kenn du foto kenn du def dara piis leen côté xool te dem. dañu ko jox rek ñu xool rek. rek dem en tant que député. en tant que député loolu mooy ñàkk respecté député. Hmm. loolu mooy foyee député ñu ne léegi euh, da ngeen da ngeen di xool rek euh, parce que en réalité euh, duñ leen ko jox donc da ngeen di xool dem. Euh, euh, waaw euh, parce que wóorul c'est tampé du sceau de la confidentialité mbiru kii la secret la mënuñu leen ko jox comme si ñoom ñun ñi nga xam ni Cheikh Bamba Dièye nekk ministre Moustapha Guirassy nekk ministre surtout Serigne Touba bi ñu àndal di sëñ Cheikh ñu ñooñu ñooñu gis lu ñu gisul dem fu ñu demul ñu di leen wax Euh, confidentialité ni leen confidentialité la. comme si ñoom ñoo gën a nekk digne de confiance. loolu jaadu na mieux diggante bi ñoo ñu di xoole loolu pareeguñu ñu defoon ni umpalante na ñoo Ousmane Sonko comme dégg nañ ni ñu ngi ci biir rek te ñoom bi ñu ñëwee ba toog rek lañ ko wax presse bi ni leen wax leen ni opposition bi ñëw na ba toog daal di leen jox kayit ni leen signé leen ñu daal di rek ñu daal di jàpp nag léegi mën nañoo rey sawaay daal di ko yónnee benn gendarme. pour que mu jël. Euh, moom mooy lettre bi gendarme bi yóbbu. mooy lettre bi gendarme bi yóbbu Ousmane Sonko euh, euh, refusé ko bañ a dem. mais bu ko refusé wul woon ñun dinañ am gàcce parce que su dee opposition ba ko fa toogal ñoom. kon yéen pareegu leen sax lettre bi dem. pareeguñu. pareeguñu ñu nax leen ni leen dem leen bureau Pape Birame Touré dem dem xooli kii ba dem xooli dossier bi ñu nekk di xool dossier bi ñu gannaawu leen dem yónnee gendarme. xam nga mbir mi da ngay xool ba mu yàgg nga ne ndimbalu yàllaa ngi ci. Mhm. li tax ndimbalu yàlla nekk ci mooy bu bu bu Ousmane Sonko jëloon lettre bi ñi demoon di ko toogal. ni mhm. leen nag usmaan mënagul a ñëw tànk loolu mhm. leeragul. dina dinañ am gàcce. waa dana dana compliqué trop. dina compliqué. waaye heureusement mu ni leen jëluma parce que bi nga xamee ni euh, ñoom gedd nañu as kii bi ca plénière ba. ñoom député yi ñoo wax ci rajo bi ni Ousmane Sonko de lii ñu gis mascarade lay nirool. Mhm. maanaam maanaam maanaam maanaam. dañ koo rëjëxoo bii nag. oui nga xam ne dañ koo bëgg a rey rek. Mhm. complot la daal bu leer boo xam ne député yi am nañ expérience. surtout ñu nekk ci opposition bi. oui oui absolument. te itam bu ñu amul expérience tam riirum ñu doon riirum ñu doon ñi ñi yeewu euh, yéena ñu doon nelaw ñun dañ cee jaar Maodo. Mhm. xoolal ba ñu commencé 2012 ba léegi. ñu ñu ñu ñu naan nañu def confiance suñu justice ñu di ñu rey Khalifa Sall ba ñuy dindi malaanu kiiraayam lenn rek lañ leen ñaanoon ni leen nañu na ñëw fekke si ko te loolu article cinquante deux bi daf ko prévoir ñu nanguwuñ ko waxtu wu nekk te ñoom ñoom Omar Sarr ñoom Ousmane Ngom ñoom euh, ñoom euh, Ablaye Balde ñooña dem nañ wuy ji donc lañ leen doon toppe naax saay na loolu dafa mel ni malaanu kiiraay boobu nga xam ne constitution bi daf koo defoon pour député bi sagale ko député bi dafa mel ni léegi. malaan moomu jàpp naa morso la rek ay sagar la rek. d'accord mais kon léegi bu teguwul fenn. am na lu ñuy ruumandaat ci askan wi ñu bari naan daal léegi euh, Ousmane sonk daal gars yi boo defu ndànk dañoo bëgg rek wiiri wiiri wiiri dugal ko ci kaso bi. Ah, am na am na ñu koy ruumandaat de xaw ma nag ba xam ba ban jàngat nga ci. li yoon wi ñu jaaragum de dajagul waaye nag xanaa xanaa li ma jàpp. Hmm. mooy xanaa Ousmane sonk du ganaar rek ndaxte ca gannaaw dégg naa sa benn confrère bind. Hmm. ci wal fajri sax laa ko liire. Hmm. ni am na malaise bu nekk ci magistrat yi ñoo yey. ah dafa am fu kawe fuñ leen teg gis nga Abdou Mbengue lii mu def tey. ba delloo gendarmerie gëddaam ca nañ leen fonke woon. man dama naan wax naa ni ma fonke gendarmerie. Mhm. xëy na li Bambey teelu la am police ndax gendarmerie rek lañ xamoon ba may xale. Mhm. xëy na looloo tax. lii nga xam ne juge d'instruction bi def na ko. Mhm. li tax mu ma metti ma man personnellement. moo di ñun bi ñu nekkee opposition bi léegi dañoo xam lan mooy valeur juge du siège parce que exécutif attewu ko ba loolu moo taxoon sax moom laal doon wax léegi ni la normalement juge d'instruction mënoon na jox. ba mu ba mu enquêté ba am lu leer ba xam ne x diw la mu delloowaat ko procureur ne leen yéen a xam nag ndax procureur ak kilifaam nga xam ne mooy procureur général ñoom ñooy euh, ndawal ministère de la justice ci justice ministère de la justice président waxaat na ko bërki dee mbooy njaay mhm. mais euh, procureur ministre de la justice da koy sant ministre de la justice sant euh, rendre compte président kon ministre de la justice moom tey moo incarné Euh, pouvoir judiciaire bi nga xam ne mën na saisir. Mhm. pouvoir législatif. d' mais est ce que est ce que euh, l'honorable député Soxna Aïda Mbodj euh, c' vrai que li li ma ko tàmbalee woon léegi Ousmane Sonko am na ci yow kóolute dëkkandoom nga teg na la ci kanam pour nga jàpp ci bu baax a baax a baax mais est ce que seen plénière bi sax daanaka jarati na ko bu ma xoolee fi nga jaar nii yëpp. su te ñoom ñoo yore majorité mécanique bi est-ce que yéen wala da ngeen dem rek taxaw laxasaayu doon te xam nga ne dañ leen di jàggi xam nga ñun Maodo li ñu ci intéressé. Mhm. li ñu ci intéressé rek mooy nañu nañu wéral firnde. mu leer mu leer parce que sénégalais yi ñoo ñu yóbbu assemblée. oui ba benn ban assemblée la ñu am. est-ce que assemblée dafa war a def liggéey juge d'instruction est-ce que loolu mooy cëru assemblée nañu firndeel est-ce que ñun wax dëgg yàlla bu ñu demee. yéen askan wi nga xam ne ñun ñoo leen nekkal assemblée est-ce que yéen askan wi bëggoon ngeen ñun ñu teg ñu rek ci bedd mi ba ku ku ñu ku ku jot jaar ñu sàkk ndax amuñu kilifa gu ñu yiir luwaay yi nga xam ne moo ñu doon yiir tege nañ ko boor est-ce que yéen askan wi lool ngeen santaane woon est-ce que yéen askan wi lool ngeen ñu yéene dinañ ko bañ nag dinañ ko leeral ba mu leer dinañ ko wax te yàlla rek nag tax. Mm-hmm. yàlla rek tax wax nga ni wóolu na ma dëkkandoo nañu. waaye itam man boo ma seetloo xam nga ni li ñu tuddee arbitraire dama koo mës xeex fii mu nekk tey boo boo boo boo tàppe woon ci Google détention arbitraire euh, sama engagement rek dinañ la won ne la kii Aïda Mbodj la ndax ñoo nekkoon bi ma koy defal Karim. en quinze te damaa gëm ni ba léegi may wax ak yow ni tëj bi ñu ko tëjoon teguwul ci yoon. keroog ba nga xamee ne ñu ngi def levée immunité parlementaire Khalifa Sall. Mhm. xaw naa daanu ndax xol bu tànk damaa wax wax wax ba sonn. <laughs> parce que en réalité <laughs> du pànk du xuloo mais xëy na ci sama deret la nekk mënuma supporter injustice mënuma ko supporter hmm. te loolu du yoon mais est-ce que assemblée nationale amoon nañ sañ-sañu juge bi këyit woowu mu indi amoon na ak ci Moustapha Niass ñu ne ko yow saw këyit wi matul yóbbul est-ce que am nañ doole jooju. ay bu ñu ko defoon ni muy baaxee. comme comme matul comme yi fii matul dafa manqué. matul te wax nañ ko ko avocat wu Ousmane Sonko yi ndeysaan ba ñuy bind lettre dañ ko dañu dañoo amoon bonne foi am préjugé bu favorable ci moom. Mhm. ne ko affaire bi jaarul fan ko war a jaar ni ko jaarul ci yoon ndeysaan jaarul ci yoon papa fexeel ba bul joxe sa doom. Mhm. boo ko delloo da lay gën a jox gëdd. ñoom gëdd rek lañ ko doon wutal. mais kon kon kon kon implicitement day mel ne xëy na kon assemblée nationale président bi ak leen ci député dañu ànd ci dañu ànd ci sërëxal gi ci ndëgg sërëx gi. waaw parce que problème bi moo di dossier bi ba gendarmerie enquêté xale bi di di di di def lu ko neex di wëndaalu ci dëkk bi ak couvre-feu. Mhm. naan maa nga ca ànd ak benn médecin maa nga ca ànd ak benn avocat. avocat bi moom. wax dëgg yàlla moom yàlla tam bari na sutura xaw ma ba ban avocat la. waaye en tout cas am na ku ñu doon waxal koo xam ni da doon da doon da doon yónni message ci biir ña ña doon complot. daf doon yónnee message ca biir groupe bañ doon complool far juum yónnee ko avocat Ousmane Sonko. eh loolu donc ñun lool message boobu rek doyoon na waaye man li ma jàpp moo doon bu doon réew mu tegu ci yoon kon ba ñu nee ba xale ba nee. ba ko ba ko gendarmerie ne ndax yow yii nga def yëpp xanaa yow da ngay politique xam nga kon kooka def na ni ko xanaa yow da ngay politique mu ne ko man sam papaay politique mooy diw mi nga xam ne mooy jiite mouvement sàngam xam nga kon booba rek booba rek ki leen jiite ñoom ñëpp te wane ni moom benn bokk yaakaar moo ko jiite booba la waroon ni ah comme tudd nañ ci lii kat te man ndey ji seex laa damaa tëddee njaaxaanaay parce que loolu la ma constitution bi sant constitution bi def ne président nanga nanga nanga bàyyi justice bi mu libre mhm. ngay wax droit mu ni président yow yaa war a garantir indépendance justice mu ni président respect principe bu euh, gouvernement boo xam ni ñépp a ko bokk yow yaa ko war a garantir mu ni président considération bi ñu war a am ci opposition yow yaa ko diggee ba bam ñuy woo ci dialogue bi loolu la ñu wooyee woon ni day jox opposition cëram ñu ni président yow principe bi ñu tuddee te mu nekk ci constitution muy séparation de pouvoir yow yaa ko war a garantir parce que moom mooy gardien de la constitution. Mhm. waaw léegi nag mu jiite Benno Bokk Yaakaar dossier ab opposant bu day ni Ousmane Sonko du leen wax jàmm du leen ko du leen ko def ndax man sama opposition man mën naa leen a woo ci jàmm tey. su ma leen wooyee ci jàmm Maodo di nga ko nangu xam nga lu tax. Mhm. man bu ñu waxee lu baax dama leen koy nangul. bu ñu bu ñu defee lu bon man leen defu leen ko. waaye donc bu fekkee ni suñu nguur gii nga xam ne tey ak même espace politique bi en général en moo fi nekk mbañeel goo xam ne dootul yamati rek ci politique dama ne loolu su amee man ay dëmbëj de sama baat ni ca raay ba mën naa jóg ni leen xoolaat leen seen bopp nag te bu boobaa damay woo président ci ni ko lii nga xam ni. PV wu gendarmerie bi turu Benno Bokk Yaakaar a ngi ci nekk te moom muy njiital Benno Bokk Yaakaar na fay dossier bi. parce que parce que tudd nañ leen ci. tudd nañ leen ci tudd bu leer. te waay te booy Benno Bokk Yaakaar mooy majorité présidentielle. mooy majorité présidentielle moom moo ko jiite. d' accord mais est ce que tey ci ci seen majorité mécanique boobu ñu am yaakaar nga ne tey ci sa gis-gis ak député yi ni nga leen xamee ñi ci dëggu nga xam ne donte tey jii dañoo àndoon sax ak te majorité bi. lii nga xam ne ñoom ku xel mu ne mën naa jàpp ne lii leerul est-ce que yaakaar nga ne am na ci ñenn ñoo xam ne am nañ dëggul ne man lii ànduma ci wala bañ ko voté. tey eh, bu ñu ko defee ku ko def dee. ah déet lu tax. ah ana Déthié Fall lii ñuy wax ne Déthié yépp Déthié def na li Déthié def na laa. Hmm. ba barki démb seeti na Ousmane Sonko li ñu ko reproché. Hmm. xam nga mbaa yëg nga ne Déthié benn yoon boobu rek la ñëw wax. benn yoon boobu mënoon nañ ko ko baal. parce que ku lay waxal lu baax di la waxal lu baax di la waxal lu baax ba benn bis mu wax li nga xam ne moom mooy dëgg mais mënoon nga mënoon nga ko baal booba waaye mayuñu ko ko. kon yow jàpp nga ni majorité bi amul benn. dëkk am fitu taxaw waaye mayuñu ko loolu ci agriculture rek la doon wax ni leen la ma daan wax laay kon ne di wax vision bi demal jam ñaajo mayuñu ko ko à plus raison nag ay ñuy rey Ousmane Sonko nga ni déet <laughs> kon de yow dañ lay rey. ah waa léegi kon léegi mais député yi député yi itam même bu dee ñooy majorité bi askan wi leen fal comme li nga wax léegi. yéen ah, askan bi ma fa nekkal. ma Maodo daal nag yaa ngi may bëgg a wax loo ñoom lu ñu wax du dañ ma député Macky Sall la. yow. déet ñoom. dama ni lu li kenn ci ñoom. waaw waaw am na am na koo xam ne kii nee na moom. waaw ah. faalewul kenn mu Macky Sall wax moom la wax waxoon naa ko daa fekkee déwén kon kay da koy waxaat ren. nee na lu ñëw du réfléchir sax. déedéet. waaw mais du tee am. waaw mais assemblée bu nekk aux ordres lii moo koy wane xam nga assemblée bu nekk aux ordres mooy juge d'instruction juge d'instruction ni man duma enquête duma préparer une instruction préparatoire damay buub lépp xëpp ko assemblée yéen nag débrouiller leen pour. Euh, pour régler le problème pour régler le problème. cela veut dire que séparation des séparation amatul présomption d'innocence tam amatul. parce que moom posé wul benn acte bu wane ni li ko procureur joxoon am na lu ci changé. d'accord. daañu ci dikkaat léegi dafa am benn point boo xam dafa am solo en politique ci politique lañ nekk est-ce que perspective yi nga xam ne yow yàgg nga ci politique ni nga jàngate yëf yi gouvernement bii ñu nekk nii nii nii est-ce que yaakaar nga ni am nañ chance su mën a xëcc war réew mi nanguwaat ko ci loxoy askan bi ni ñaa ngi yeewu parce que gis nga mbiru Ousmane Sonko bii. Mm-hmm. dafa indi benn sentiment de révolte. Mm-hmm. maanaam nit ñi seen xol dafa tàng. te defe naa yow mii nekk yaa ngi nii tey ci sama kër gis nga fii ci kaw boo fi yéegee. Mhm. di nga gis li xew buntu kër Ousmane Sonko. gis nga gis nga Maodo. gis altine jooju loolu mbir mi amee. Mhm. man li ma gis mësuma koo gis te yow xam nga ne am naa expérience. mobilisation am naa expérience su xeex politique am naa expérience mais li ma gis man mësuma koo gis. ci ay doomu aadama. te ñooñu ci ay doomu aadama ak ñooñu keroog ni ñu taxawoo ak ba pare li ma gën a metti mooy man. dama ragal police ragal gendarmerie nëbbu ma ko te loolu façon la ñu ma ko yare mhm. façon buñ ma yare la respecté mu moom muy respecté buur mhm. parce que ñooñu ñoo incarné buur façon boobu la mhm. euh, mais euh, dem nañ ba kersa gi nit ñi amoon ak pas ragal sax xëy na mais rek euh, dafa amoon mit boo xam ni dafa ëmboon ñi nga xam ne ñooy force de bi ñu dem ba ñu ñeme leen oto ndox bii nga xam ne fu mu mës ni tëll nit ñi ragal ñu dem ba ñeme ko affronté ko hmm. mu xaw a mel sax ni xale yi fi ñëwoon dañ koo yemaleeg ñiy dem ci géej gi ne au lieu que ma fiy toog di am gàcce naa dem te dee donc noonu lañ doon songe nit ñi oui te loolu musiba naaru laay la cest à bu ñu demee ba mit bi nga xam ne amatul moo ëmboon force de défense yi amatul loolu musiba la

mais xam naa ne bu yëf yi jeexee rek dinañ leen bàyyi parce que. Ah dañuy bañ xëy na beneen yëngatu am ci li ma jàpp. ci li ma jàpp parce que xaw ma lu ñu leen jàppee comme xaw ma lu ñu leen jàppee. mënuma ci prononcé wu. d' accord alors euh, euh, l'honorable député Soxna Aïda Mbodj euh, jamono bi ñu toll mënuñu cee bañ wax parce que ci actualité lay boobu suñu métier dafa ñuy laaj pour ñu wax ci euh, confinement bi gis nga ministre de l'intérieur li mu waxaat fii ba le 20 mars encore entre Dakar Thiès ba léegi rek affaire yi les robinets sont fermés entre guillemets noonu laa ko mën a waxee maanaam tëj nañ leen à partir de 21 heures. waaw est que ban jàngat nga am ci euh, gestion pandémie bi saa yi la est-ce que. man man Maodo damaa bëggoon waxtu wu ñuy def dara. Mhm. ñu communiquer ci. te ñoom ñoom ci seen bopp ñu bañ cee communiquer sax parce que gërëm naa ministre de l'intérieur. ci sensibilisation bi nga xam ne parce que ñun ñoo ko laajoon assemblée. Mhm. Euh, te ba mu bañ ko ko laajee def ni moom bañul benn ndigal. Mhm. lu ñu ko digal dina ko def mooy dama ko ne force de défence yi mën nañu sensibiliser. dem naa ba jox ko exemple ni ko boo demee ci kaw ga fee ci suñu dëkk yi euh, ñaari nit bu ñu amee problème ñi nekk commissariat mën nañ leen a régler dañ leen di déglu. Mhm. dañu def autorité. donc bu ñu digalee nit dinañ ko dégg donc dañu yeewaale nit ñi ci ni ñu war a moytoo jàngoro ji. Mhm. loolu yi dafa am solo moo gën ñuy nekk di def répression. loolu yi def nañ ko parce que gis naa force de défense yi di joxe ay ay masques. loolu xam nga baax na. Mhm. waaye bu doon sama sago. Mhm. bu ñuy prolongé te waxoon naa leen ko aussi dama ni leen France gi nga xam ne ñun toujours moom la ñuy roy ñoom ñu def état d'urgence sanitaire dañu ko àndal ak benn. kile bi nga xam ne. dañoo ànd ak benn euh, kuréel gu tudd comité scientifique. Mhm. boo xam ne ay médecins ñoo ca nekk. Mhm. mooy jamono ya ma leen di wax ni leen da ngeen a war a boole ordre des avocats euh, astafirlah ordre des médecins. Mhm. ci mbir mi. et bu ñu defee dara ñu laaj ordre des médecins. maanaam bu ñu def couvre-feu ni leen dañoo bëgg a tëj nit ñi à partir de vingt et une heures. ordre des ni leen vingt et une baax na wala gën leen a guddi wala nangam xëy na ñoom ñoo xam ne virus bi danger ci à partir de vingt une heures xëy na ñoom ñoo xam ne système immunitaire u nit ki à partir de vingt une heures day faible donc nanguwul benn contamination xëy na xëy na. Mhm. man ñoom seen métier la. d'autant plus que nee nañu euh, comité bu nga xam ne moom moo yore épidémiologie bi. Mhm. moom président day liggéey ak moom. yor na kuréel goo xam ne ñoom lay laaj. CTE CTE mm-hmm. mais man bu doon sama sago li ñuy décision bi ñuy jël ñu basé ko ci borom xam-xam yi. Mm-hmm. suñ ko ci basé kenn du wax dara parce que suñu suñu wérgu yaram la ñuy wut. ok d'accord au niveau assemblée nationale il paraît que euh, yi fii sax raamoon na ba yegg fa ñu ne. un waaw ñuy ñuy ñuy jooy suñu mbokk moomu. Mm-hmm. ba léegi euh, yal na ko yàlla xaare àjjana te dolli yërmande ci moom. amiin. d'accord soxna Aïda Mbodj daanaka lu tolloog juróomi nit moo ñu xaw a dese mais euh, il faut ñu dikk tuuti euh, ci loo xam ne sax xam naa ne ak pàttali lay doon waaye yéen élection locale moom xanaa da nga nag Maodo mii la lu ne moo koy laaj gannaaw yéen xëy <laughs> fi nekk ñoom dañuy dàq ka dàqat rek. waaw waaye loolu moom kañ la amati. Euh, waaw dina am. Ah. dina am parce ah, que experts yi. Mhm. ah ci kaw mu neex leen. ah déet experts yi ñëw nañ di am. experts yi ñëw nañ ba commencé. oui oui. ñu ngi liggéey ak opposition bi tam. Mhm. ñu ngi ci suñuy ndaw ñu ngi dem. ñu ngi liggéey ak ñoom. Mhm. parce que ñun dafa lu ñu bëggoon. parce que parrainage bi moom dañu ne woon nañu ko fi jële waaw dañu ni woon itam wax dëgg yàlla euh, li nga xam ne moom mooy euh, euh, kii fichier bi doyatuñu woon. Mhm. nit ñi amuñu carte. waaw mais Macky Sall nee na yéen rek lay xaar ah. ñi am carte déedéet duñu xaar pare na ah. duñu xaar parce que ñun dañ ko dañ cee ànd ñun ñëpp ñoo d'accord ne. dañoo war a def lii am lu ñu yóbbu assemblée pour def loolu nag nañu xaar ba ñu audité ko waaye bu ñu ko jiiñ rek opposition bi te du opposition bi rek moo ko def <laughs> donc nañu jàpp ne. parce que moom pour moom nee na moom sëgg bëre fokk moom tam nee na pare na. waaw yéen a waxoon yéen waxoon nañ càmbar. nañ càmbar. waaw mais bu càmbar bi pare lu ci bëri dafa aju ci ñoom. parce que même ñi ñuy dimbale ay USAID e yooyu am na seen fay fu mu yem li ci des ñoom ñoo ko war a yeggale. suñ ko yeggalee ba mu pare mais gisatuma luy tax ba duñu def élection yi bu boobaa ñu dugg jublu ci élection yi. d'accord euh, soxna boo Mbodj euh, projet yu baree bëri ci gouvernement bi xam na am nga ci xam nga ci dara am na ci boo xam dañ koy dàq di ko dàq di ko dàq mooy TER bi kañ lay daw. xaw ma ko. <laughs> damaa xam ne am na lu ko gën a ñor ndax gis nga boo gisee affaire Ousmane Sonko bi naqari ma mhm. mooy dafa am lu gën a jàmp. Mhm. énergie bii ñu ciy def di wax. waaw nañ ko def ci lan la ñuy dindee pandémie bi fii. ma profité ci wax la ne la nañu wax wax ju dé ju jub ju nit ñi mën a dégg. nit ñi seen xel dal ñu ñàkku ji. Ah. nit ñi bu seen xel dalee rek ñu ñàkk ji Sénégal am na tradition ñakk de. Mhm. Sénégal xam nañ luy ñàkk. Mhm. ndax ñàkk suñu demee bañ ne sëy sëriñ Babacar si dugal na ci kàddoom. Ah, suñu demee bañ sa turandoo dugal ci kàddoom. Mhm. ñu demee Touba ñu xam luy ñàkku. ñu xam ne ñàkku baax na. Euh, Sénégal am na tradition. pour yow dañoo waroon orienté lépp jëmale ko ci xeex bi rek bàyyi fi ay détails yi. bàyyi détails yi taluñu ko Maodo dégg naa ñu ni juróom-ñetti téeméeri dee weesu nañ ko. waaw weesu nañu baar baaru 800 morts. waay quand même li gën a baax ci ñun a dem. waay nañu wëlbatiku président ndam bu ma déggee na dal. Mhm. président dalal. ah dina la déglu moom c'est clair. Ah, kon nag nag dama koy ñaan mu dal. président tey d'accord naa ne sama xarit nga. sa jigéen nee na nga dal Ousmane Sonko soxlawul lii ngeen ko indil. Mhm. te nag yaram din tu dindil na ko tuuma. Mhm. doxalinam dindil na ko tuuma fa mu jóge initiation dafa am dafa am sens. Mhm. ngeen commencé ci tëj dossier 94 milliards yi ngeen euh, wax ni moom xëy na ku la jege ni xëy na moom mooy nekk. chef de l'opposition comme deuxième ba dem na ndekete meeb la woon. ay pièges la woon meeb meeb la woon. parce que xam nga ni kii duñ kii nii ñuy topp di ko di ko taqal duñ ko defal duñ ko def euh, duñ ko def chef de l'opposition mu garaaw nag parce que ñoom ñoo tudd loolu ba pare léegi mel na ni opposition bi yëpp lañ agressé parce que président moo waxoon ni opposition bi tant que leen duma am jàmm dinaa leen réduire à leur plus simple expression. Mhm. maanaam mooy opposition dafa bëgg mu raaf bëggatul opposition am waaye nag ñun mën nañ la ko dig sax xëy na waaye nag jublul ci lii faj Sénégal parce que dafa am loo xam ne moom la tuddee le patrimoine humain mhm. maanaam nit ñi nga xam ne mënatuñ leen a wecc mënatuñ leen a kile te ñu nekk fi nañ leen aar ndax ministre de la santé ñëw na ni dañoo may euh, vaccin yi Chine may nañ ñu ñaar téeméeri deux cent deux cent mille dose deux cent ñaar ñaar téeméeri junne mhm. ñu ñëw mu daal di effacer tweet boobu le lendemain waa service am yónnee message ni kenn mayu leen président nee na barki démb dañ koo jënd donte nag man Maodo ba jënd bee ma gënal de. Hmm. waaye nag au même moment bi muy recevoir Zimbabwe jot na ne dañ leen a may. Guinée jot na ne dañ leen a may ñun nag la ñu daloon ci làmb ji xamuñu dañ ñoo may xamuñu dañ ñoo jënd. dinaa leen ko laaj assemblée. ah bon alors wóoragu la. wóoragu ma ndax dañ ñoo may wala dañ ñoo jënd donte ne nag jënd ma gënal. waaye daal li li jàmp nii li jàmp mooy nañu def approche communautaire na président wax ak ñi mu war a waxal def leen nawle nag na wax ak kilifa diine yi nañ def jël relais communautaire yi ñu waxtaan ak nit ñi ñu euh, toppatoo ñàkk yi te itam nu ñuy conserver ñàkk yi maanaam chaîne de froid bi nañ ko nañ ko nañ ko kile parce que ay dëkk yu mel ni Touba ki Bambey nga xam ne dafa tàng la cay yóbbu ñàkk ya nañ ko xool ba du changer. te bàyyi complot politique bi. politique bi yàlla pare na. yàlla pare na Maodo yàlla pare na maa ngi leen di gërëm maa ngi lay sant bu baax a baax leen di sant di la gërëm bu baax maa ngi ñaan yàlla lu ma fi wax mhm. yàlla na dugg ci xol te yàlla na ko suñu borom soppi ba muy wax ju rafet amiin yàlla bu ma fi wax dara luñ may yedd ah, maa ngi sant yàlla bu baax a baax di leen mhm. gërëm di ñaan yàlla yàlla na lépp sedd amiin amiin d'accord bu ko defee Ousmane Sonko dellu ci féexu bakkanam Ousmane Sonko nekk ci li mu nekk président Macky Sall nekk ci li mu nekk ñëpp mënuñoo bokk ànd jamono ñooy bis bu nekk Maodo dama dégg la ngay waaraate ñi nga xam ne ñoo doon diingat euh, sunu borom ak di diingat ku gën a tedd ki wallaay ndeysaan te kenn tuddatu leen te kenn waxatu leen d'accord euh, soxna Aïda Mbodj ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bokk ñu doon déglu tam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ma fàttali nag ki ñu doon dalal mooy l'honorable député di soxna Aïda Mbodj di ko sant bu baax a baax di ko gërëm donte tam xat na trop trop trop trop trop beneen dimanche incha allah di kat ci beneen gan ñu ngi leen di ñaanal jàmm jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup